jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek nañu koy topp ci site internet bi di Buzz SN li a fës ci bopp xabar yi nag dañu koy door rek arrestation bi nga xamante ne rek daal nañu koy def kii di Ahmed Suzanne Camara moom ci jëmmi boppam rek ne nañu daal teg nañu ko loxo ba jamono ji nag ñu ngi koy yóbbu ci commissariat central ci kilifteefu ak ci ndigalu procureur de la république jamono ji ñuy wax nag xamaguñu rek lan moo waral boobu les arrestation ba tey bi ñu jógee ko foofu dañuy àddu rek wax ci ki nga xamante ne njiital réew mi di président de la république di Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom ci jëmee boppam rek jamono ji daal dinay ko nag réew bii di Sénégal ni ki tey ci suba pour wutali diwaan bu bari nag ci invitation bi nga xamante ne rek naataango président bi di Emmanuel Macron moom moo ko daal di invité fi nga xamante ne rek moom mooy ca diwaan bu France ak ki nga xamante ne moom mooy Thomas Bats président bu comité exécutif bu comité international olympique moom président Bassirou Diomaye Faye nag dina bokk rek ci sommet international bu sport bi nga xamante ne rek ak juróom ci weeru juillet ci atum 2024 moom président de la république nag dina teewee boobu les cérémonie d'ouverture bu jeux olympique bu Paris niki ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet ci atum 2024